del déglu del xool Feeling bi lay jox information yu leer. Amis internautes de Feeling Dakar bonjour dernière minute une très très bonne nouvelle Diary Sow enfin retrouvée l'étudiante sénégalaise portée disparue depuis le janvier 2021 actuellement entre les mains des autorités consulaires du Sénégal à Paris l'annonce a été faite par E-Media Le lieu où Diary, la meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2019, a été retrouvée n'a pas encore été dévoilé. Des sources très sûres d'une proche de Diary confirment qu'elle est entre les mains des services consulaires du Sénégal à Paris, qui l'ont localisée et l'ont ramenée. Elle est entre de très très bonnes mains. D'ailleurs, le ministre sénégalais, Serine Baïtiam, son parrain, a pris hier le vol Air Sénégal en direction de Paris. Il a été aperçu par plusieurs témoins qui l'ont vu à bord et d'autres l'ont vu débarquer à Charles de Gaulle Paris. Sa présence sur le sol français confirme que l'annonce révélée est bel et bien juste. Diary est retrouvé. gannaaw disparition am boobu ba tey ñu ngi koy topp information yu ci am yépp ñu leen koy andil ba tax na nag kii di Diary Sow buñ ko dooree ci li nga xamante ni moom moo di disparition wam ca njëlbeen ba dañoo jekki saay rek gis ay information ci noonee nag information yooyu nga xamante ni école bi Diary Sow doon jàngee ñoom ñoo ko daal di waaye nag ci noonee la ci média yi daal di jot ba tax na sax kii di paxewam di Serigne bay Thiam moom moo daal di confirmer woon yooyu la xibaar ñuy dem di dem ay information ñu koy fësal yii nekk dëgg yii nag nekk loo xamante ni nii dara amu ci waaye nag bari na ñoo xamante ni nii daldi woon na ci àddu ci mbir moomu lay bari na tamit ay seetkat yoo xamante ni ñoom tamit daldi woon nañu àddu ci mbir moomule ba tax na nag lii di police française gannaaw ba mu duggee ci mbir mi daldi tàmbali ab enquête ci noonee lañu daldi découvrir ni que kii di Diary Sow fi mu mënti nekk moom moo fa bàyyi boxam moom moo fa yóbbu boxam ndax nag lii di piste kidnapping bi dañ ko daldi éliminer ci noonee nag lañ daal di wax ni kii di jaar ci saw moomule moom moo daal di yóbbu boppam ba tey ñuy continuer Sénégal yi jaaxle lool que ñi nekk France que ñi nekk Sénégal fii ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk France foofu le sax jotoon nañoo mobiliser wu di taf ay affiche def ci photo Diary Sow ngir yombal li nga xamante ni moom moo di seet boobule ci noonee nag la ñu daal di amaat beneen nouvelle boo xamante ne nii dal daal dina ñeel Diary Sow police française nag moom moo daal di fësaloon yooyu la information di wax rek ni que Diary Sow dafa daal di nekk en contact ak ñoom waaye nag par intermédiaire ñoom nag li ñu bëggoon mooy nekk en contact ak jaari Sow directement ci noonee nag buñ ci tegee ay bés moom jaari Sow ci boppam. moom moo daal bind ab bataaxal kii di parewam di sëriñ bay Thiam daldi koy xamal ni fépp fu mu mënti nekk moom moo fa yóbbu bu xam kenn forcé ko kenn dóoru ko kenn xokkatalu ko kenn tegu ko pression it ba tax na ci bataaxal boobu ba tey mu ngi daal di xamle nit ni que moom li nga xamante ni moom la def muy jëf ji amul benn explication boo xamante ne nii bu yenu maanaa bu mën a joxe ndax nag lu yenu maanaa gisuñu ko fi moom Diary Sow bu continuer ba tey di xamal rek ni que ñi nga xamante ne nii tey yaakaaroon nañ ni que walla xalaatoon nañ ni tey Diary Sow lu ko téye nekk na loo xamante ni nii neexu ko ñooñu nag dina leen décevoir ndax décision bi nga xamante ni daal na koy jël moom moo ko jëlal ci teeyu ba kanam bu ñu jugee ci li nga xamante ni moo di bataaxal boobu nga xamante ni moom Serigne Mbaye Thiam ci boppam moom moo ko daal di dellu publier ko ci compte Twitter ci noonu la internet yi ak réseaux sociaux yi daal di koy jëlaat mu nekk nag loo xamante ni nii am na ci ay sénégalais yoo xamante ni nee nañ bu fekkee ni loolu am na. ñoom métit lañ nañ ko lool am na ci sax ñoo xamante ne dañoo dem bay wax ni moom Ndiakhou Sow dafa yebaate ci noonee nag li nga xamante ni moom moo di xibaar bi ñu mujjee jot nga xamante ni E-Media daal koy fësal moom moo di kii di Ndiakhou sew daal na feeñ ndax nag lii di autorité yi daal nañ koy localiser fa mu nekk ba daal nañ koy jël jamono ji ñuy wax ak yéen nag moom Diarry Sow mu ngi fi nga xamante ne ni moo di ca consulat bu Sénégal foofu ca France ci noonee na sax kii di parrain moom di Serigne Mbaye Thiam ni ki démb daal dina jël vol jóge Sénégal jëm fi nga xamante ni moo di ca France ba tey bu ñu sukkandikoo ci immédiat moom nag vol Air Sénégal la daal di jël ndax nag ba mu wàccee sax ca France gis nañ ko ci aéroport Charles de ci noonee sax moom Serigne bay Thiam daal dina dem fekk ji jaari sow ci fi nga xamante ni moo du ca consulat bu Sénégal foofu ca France mu mel ni nag jaari sow jamono ji mu ngi ci ay loxo yu wóor